bonjour les amis di leen wax rek ngeen dal ak jàmm sur ma chaîne YouTube Net Bi TV di am mbégte ak kontaan bu baax seetaan bi ngeen seetaan ak suivre gi ngeen di suivre di wax na yéen ñi xam ne ngeen gan seen bi table goo leen ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés cloche de notification bi di dikkee yéen defeen waxtaan ak série di jabar góor gi si ki nga ne moo di Sader Sader nag ba tey mu ngi dëgër boobu na du génn kër gi te Manta ak Aram génneen moo di Jeynaba te loolu wóoru benn yoon si ki nga moo di Sader waaye nag ku nekk wax na ba sonn mais Sadio moom mu ne du génn kër gi mukk tànk daa wasin ndaxte daa bëgg a matal lu ko góor gi bindoon lu leen góor gi bindoon ci lettre lettre ba loolu la bëgg a matal moom Sadio ba tax ki nga moo di tàntam ñëw ngir bëgg mu génn kër yi en tout cas Sadio bañ ba tëdd si naaj moom Sadio en tout cas tàntam moom xam na lu jeex ba capable lépp ba tax mu ñëw ne da dëkk si kër gi mu jël ay bagaasam ñëw ne de dëkk si kër gi dëkk Sadio si kër gi ak jeex ba. mais Dieynaba moom nangul loolu dara moom Dieynaba ndaxte bu ñu xoolee ba dafa siis te Dieynaba day jéem a àkk moo li xam ne moo di kër gi waaye yaakaar naa ne tanta tanta Sadeer nekk si kër gi loolu sécurité la si sa Sadeer parce que Dieynaba ak Sadeer si kër gi loolu risque bu mag la si ki xam ne moo di Sadeer te doon Sadeer bëgg naa matal lu leen góor gi bindoon si lettre ba parce que nee na trois mois moo ko dese kon te trois mois bëri na bëriwul waaye risque la si Sadeer kese mu nekk si kër gi ak ki moo di Dieynaba gars yi xam naa dañuy yemane yéen fii si vidéo bi rek daa am ak kontaan bu baax seetaan bi ngeen doon seetaan ak siiwul bi ngeen doon siiwul di fàttali yi nga xam ne ngeen gën seen bi te abonné goo ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te leen fàtte bés cloche de notification bi jaa ngeen